aousubillahi min asheytani irajim bismillahi arrahmani irahim mbokki daari kokki mbokki kokki mbokki Louga mbokki Sénégal mbokki bitim réew ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk ci turam ak ci santam xanaa doon leen euh, présenté rek euh, ci bis li waral suñu daje fii nii tey ci daari kokki euh, fàttali tuuti def benn historique ci daari kokki daara la joo xam ne ki ko sos mi ngi ko sos 1939 jëloon am ndigal bu jóge woon ci sëriñ Maam Cheikh Mbaye Al wax sëriñ Ahmadou Sakhir Lo ne ko demal ca daara yi ko demal ci dëkk bu ñuy wax kokki boo fa demee ca sëriñ ba dëkk ca dëkk ba mu kii la bu ko defee doomu jullit ñi dafay ñëw ku fa ñëw nga jàngal ko alxuraan te bu ko ca laaj dara bokk na ca dañ ko yebe woon ne ko qul laa as'alukum alayhi ajran illa al mawaddat qul laa as'alukum alayhi ajra laajuñ la ci laajuñ la ci benn fay bu ko defee bokk na ci liñ ko yebaloon na ko na ko waaj waajtaayu daara yombul bokk na ci newoon na ko way zamkuru bikal ladina kafaru liyusbituuka aw yaqtuluuka aw yuxrijuuka suuratul anfal bu ko defee loolu it mooy li nga xam ne moom moo ko moo fi doon xaar euh, sëriñ Ahmadou Sakhir Lo yal na yàlla dolli ay leeram mooy borom bërëb bi nekk na léegi moom moo sancoon daara ji daara ji nag bu ñu mel nii maanaam ci suufu askan bi bu nekk ci biir boo leen duggoon ci biir da ngeen ko gis ak ay ñaari donga yu ñu amoon booba it yombul woon waaw 1939 ba ñuy commencé boobu guerre baa ngay commencé deuxième guerre mondiale la ngay commencé waaye moom mu ñëw taal taal fi taal ba nga xam ne nii taalu taalu taalu alxuraan la taalu leer la taalu taalu taalu taalu loo xam ne moom la moom sunu moom la yonent bi sallallahu alayhi wa digle ne ñu jàngalee ñi gën ci yéen mooy ñuy jàngal alxuraan moom liggéey boobu la commencé woon. liggéey boobu la commencé woon liggéey boobu 39 ña fa njëkkoon a nekk xamoon nañ ne yombul woon ñëf maanaam laajoon laajoon muñ gu bëree bëri waaw mun googu ca la commencé ba. daara ji di dox di dox ñenn ñi di fi mokkal bokk na ci ñi nga xam ne ñoo fi njëkk jaar njëkk fi mokkal alxuraan Serigne Samba yi mu nekk koo ne kenn dootu ko présenté ci Sénégal xam na ay leer ndax moom it ko waajuram moo waajuram maam Cheikh Mbaye moo ko boole woon ak Serigne Amadou Sakhir Lo mu àggale fi mu àggale fi alxuraan karim bokk na ci ñi nga xam ne ni jaar nañ fi alaaji jiili Mbay moom ci ñu njëkkoon a ci daara yu ci sunuy magi daara la bokk waaw ñun jamiyatu xiriji Maodo Ahmadou Sakhir Lo ñun ñu génn ci daara ji ñooñu ñooy sunuy mag yi magi daara yi ci mag bokk na ci ña ci mag it ki ñu doon jooytu ñëpp bu ñu alaaji Madu Njéeme moom tamit euh, ci ñu njëkk a génn ci daara ji la bokk moom it euh, nekkoon fi daan jàppale sëñ Ahmadou Saxir Lo moom mën noon na wax ne diggante cinquante ci cinquante yi ba ci soixante yi moom moo nekkoon bras droit am maanaam moo taxawu woon liggéey bi ba ci waa këram sax xam ne ci ñu mag ñoo xam ne fi la ñu fi la ñu fi la ñu fi la fi la ñu juddoo buñ ci jógee it 1960 ci 1960 ñi nga xam ne nee nañu xam nañu jamono jooja nee nañu booba daara ji ay sàkket la woon sàkket yi da daan tàkk daanaka at ñu at bu ñu romb bu ñu topp rek daara ji da daan tàkk donc kon daara ji xëyul doon ay taax ay sàkket yooyu jaar nañ jaar nañ ci ay daara ju tàkk takk ju bare bare suñu Amadou Saxir Lo ci muñ nga ndax bokk na ci lañ ko yebe woon wa iz yamkuru bika llazina kafaru waaw maanaam ñi nga xam ne ne nekkuñ ci yoonu suñu borom bi du nu la ba danañ la danañ la yi bokk na ci sawara si tàkk suñu borom dana la nattu ndax nee na la du ma la joxub liggéey ba noppi bàyyi la nga dem noonu ah, ma sibtum an tadxulul jannata wala ma ya'lamillahu wala ma ya'lamillahu alladina ama sibtum an tadxulul jannata wala ma ya'tikum mathalu alladina xalaw min qablikum massatumul ba'sa wa darra donc ba'sa wa darra boobu continue na baax ku ñuy wax aji ah, maxari gay ñëw tabax daara ji li ñu seen yi nga xam ne moo ci féete suuf Alaaji Maxari Gueye moom moo ko def defe woon ko ci lu toll téeméeri million ak lu teg ci jamono jooja loolu buñ ko doon wax tey ji ci buñ ko doon estimé ci valeur maanaam ay milliards tudd Alaaji Maxari Gueye kon moo tabax daara ji nii moom moo ko bâtiment yi ñu gis nii moom moo def loola loolu it doon ab étape bu am solo ndax defe naa bu ñu xasee ba defi tabax maanaam dootuñu wax ay daara yu tàkk waaye daara maanaam tàkk jëm ca kanam la ñuy wax loolu yi mënuñu ko tudd tudd ki nga xam ne moo fi wuutu sëriñ Ahmadou Saxi loolu sëriñ Maxtaar loo ma la toog nga xam ne moom moo moo moo tabax jumaa yi ci yëpp ci jamonoom la am jàngale alxuraan bi gën ci avancé ci jamonoom boo ko defee ñu tuddaat 1980 euh, moom it muy étape bu am solo ndax ci 1980 ci la ci la association bi ñi nga xam ne ñoo fi daan génnee na ñun kat jot na waaw ñu ñu nit ñu takku dooloo bennoo taxawu daara ji nga xam ne nii ki nga xam ne moo ko sosoon te nekk fii ci 1980 woon maanaam suñu Amadou Sakhir Lo ñi fi nekkoon nekkul woon seen i ñu daara kese waaye seen baay la woon seen i ndey la woon seen lépp la woon loolu yi moo waral cofeel bi moo tax fu nekk tey nit di jóge ci Sénégal di ñëw di di ko seedeel loola loolu yi ñun ñu koy seedeel même bu ñu ko fekkewul ndax gis nañ suñuy baay taxaw bi ñu ci taxaw gis nañ suñuy maam taxaw bi ñu ci taxaw waaw bu ko defee ñi topp ci ginnaaw mi dàqunu ko donc à partir de 1980 la ñu la li ñuy tuddee jamono euh, xiriji Ahmadou Sakhir Lo des sortants de l'institut maanaam mën nañ wax sax léegi dootuñu wax madrasa ndax bëri da madrasa ñoo ko côté dem na ba àgg ci li ñuy tuddee maanaam bu mën a tudd institution ndax àgg na weesu na léegi ab daara joo xam ne dañ fiy jàngal Alxuraan kese ndax ku nekk gis na école la boo xam ne nii nit ñaa ngi fay ami certificat nit ñaa ngi fay am BFM barki démb ñu ngi am ay mention yu bari ci bac bi te loolu it doon doon doon doon doon kii bu rëy a rëy ndax ku xam su njàng fi mu toll ak fi moyen bi toll ñu naan la am lañu ëpp 90 ci bac loolu du lu du lu ndaw kon daa daari Koki du bërëbu jàng alxuraan kese waaye alxuraan yi ndey ja daa fekk ne du loola kese ndax nit ñaa ngi fi jàng di fi am BFEM di di fi di fi am bac di dem di intégré wu université bu nekk ci àdduna bi kon ci la. commencé ci la ci la ñu commencé ci la ñi ci nekkoon ñu mën nañoo tudd sëriñ mën nañoo tudd Modou Kotiari fa mu nekk yal na ko yàlla dolli ay leer moom it nekkoon koo xam ne mënuñu koo ñàkk a tudd ndax bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoo jox naissance jamañetu xirij Ahmadou Sakhir Lo ñi nga xam ne ñoom ñoo ne mën nañoo def ak bis boo xam ne dañuy dem ci sëriñ Ahmadou Sakhir Lo bu ko defee ñun ak képp koo xam ne liggéey bi ñuy def ci kokki neex na la képp koo xam ne ndigal googu nga xam ne sëriñ Mame Samba joxoon na ko sëriñ Ahmadou Sakhir Lo neex na la ci jàngal doomu diine jàngal doomu islam képp koo xam ne jàngal alxuraan neex na la ñu ñëw bu ko defee lépp loo ne mën nañu koo jàppale ci daara ja jàppale ko ña fa ko sunu sëriñ jàppale ko jàppale ko sunu rakk ya fa nekk ci wàllum jàng alxuraan jàppale leen ci ci ci indi ay ay réponse fait indi ay tontu ci laaj yi nga xam ne nii xale yi ñu ngi koy xaar ci wàllu lépp lu mu mën a doon wàllu organisation bu ko defee ci loolu noonu lañ daan def loolu moo waral daje bi loolu kon boobaak léegi 1980 tey ñu nekk ci 2016 mën nañoo wax daanaka ñu ngi ci 20 ñu ngi ci 37e édition kon loolu noonu moo waral daje bi fii daje bi nag yi ah, nga xam ne ñoom ñoo ko waa jamiya bi yàqunu ko ndax ñëpp ñoo xam ne waroon nañ leen a consulter consulter nañ leen woo nañu waa sécurité bi ñëw nañu daan ñi ngi leen ñi ngi leen di sargal waa service d'hygiène ñëw nañu ñoom it ñu ngi ñu ngi leen di sant bu baax a baax waa Jamhiya bi it ñëpp ak i ak seen xarit maanaam ñëpp ñoo xam ne ñu ngi jàpp ci liggéey bi rek ñëpp ñoo xam ne génn nañu bi ñu ngi koy tuddee les sympathisants de l'institut de de du Coran rek la mën a wax ñi nga xam ne sopp nañu alxuraan fépp ci àdduna bi ñu ngi nii di ñëw ñu ngi nii di agsi kon ñu ngi leen di gis ñu ngi noonu di nuyu Serigne Makhtar Lo ko defee comme ni nu ko waxee lii rek du daara ji daara ji nee naa leen nekkatul ab béréb boo xam ne des fiy jàng alxuraan kese institution la euh, alxuraan ji nga xam ne it moom lañ fa doon jàng démb sëñ Ahmadou Saxir Lo doon ko jàngale commencé ko ci 1939 tey jii nii maanaam euh, ñi ngi ami seede fu nekk ci ci alxuraan jooju noonu mu mokkee alxuraan jooju noonu mu rafetee loolu it mënuñoo ñàkk tudd sëriñ Ibrahima Lo mi nga xam ne moom moo moom moo moom moo ñëw moom it waat daal di jëlaat alxuraanam rafetalaat ko ba mu gën a rafet daal di jàngat tajwid ci ñi nga xam ne nii ci daara ji lañ nekkoon ku mel ne sëriñ euh, Cheikh Lo Sour ñëw investir waat ci daara ji investir xam-xamam xam-xamam boobu noonu ci alxuraan ju wér ju rafet di riwaayatu war nit ñi di ko jàng nit ñi di ko tari ci àdduna bi yëpp bu ko defee ñuy félicité suñu doom doomu Moustapha Ngom mi nga xam ne moom tamit bëgg démb moom moo jël euh, prix alxuraan ci réew mi ñu koy sargaat ndax bàyyam it ba ci démb fi la nekkoon la jàngee alxuraan moom it mu daan bind yi nii maanaam loolu it ñu ko sargale di sargale di sargal bépp ñëpp ñi fi nga xam ne aussi ñoom ñoo ci ci seen ci seen ci seen ci seen mention yooyu ah, xanaa rek tuddaale associé kii bi nu mu tudd ah, ah, jamaya bi nga xam ne ni ñoom ñoo ñoo taxawu liggéey boobu tey même bu fekkente ne relais bi def nañu relais bi ñi ko taxawu woon démb taxawuñu ko xale yi fi nekk tey wane nañ ci taxawaay maanaam sama mbokk yi sëriñ Abdou Khadir Seck sëriñ Racine Diop ak ak sëriñ Moustapha Wel mi nga xam ne moo jiite liggéey booba ak sunu mag ñi ñëpp nekk fii nii maanaam ñu ngi taxaw liggéey bi ca anam bu mu gën a rafete di leen di leen di leen sant ci loolu ak bu fekkente ne waaw kon waaw billahi shaitan rajim bismillahi rahmani rahim c'est téléspectateurs de Bichri TV Vision nous voilà encore une fois au de Koki pour célébrer la 37e édition donc de la rencontre annuelle des sortants du de Koki Alors comme vous le voyez, les délégations affluent de partout, venant des, cadres, des 14 régions du Sénégal pour faire les tiers auprès de Seigneur Narlo. Aujourd'hui, directeur de l'Institut islamique Ahmed Sahir Lo, fondé en par Cheikh Ahmed Sahir sous l'égide de son homonyme Cheikh Abed Kabir Mbaye, qui lui dit d'aller enseigner le Coran à Koki. Alors, aujourd'hui, le Dara compte 3607 dar, euh, qui sont logés, nourris gratuitement, donc qui font leur éducation. Cette rencontre a été des sortants donc, du Dard de Coquille depuis 1980. Donc les objectifs de, de, de l'association permettent et coopératives entre les anciens qui étaient ici, qui ont fait nous célébrons cette fois-ci la 37e voyez les délégations euh, qui arrivent, qui sont en train de saluer le marabout chez Ahmad Mokhtar Narlo. Les délégations des quatre régions amenant leurs dons aussi. C'est une journée de solidarité, comme on dit. Ce n'est pas tout simplement une rencontre. C'est une journée de solidarité où les gens viennent avec leurs dons, aider leurs frères, leurs fils, leurs filles qui sont aujourd'hui dans le dard de coquille. On compte en ce moment talib, de talibés qui font leur apprentissage. Donc nous célébrons cette année la 37e édition. En même temps présenter les résultats que nous avons eus cette année pour le BFM français, à savoir 100% donc, à, l'examen de, BFM français, plus de 90% pour le baccalauréat LA, donc arabe. Donc nous, célébrons aussi, en même temps, nous rappelons le Cheikh Amour qui est qui a, qui a initié cette, euh, ce Dara-là, où nous comptons aujourd'hui plusieurs édifices. Donc il avait laissé ici ce bâtiment conseillé par Elhaj Mahadi de Thiès, et nous comptons aujourd'hui plusieurs bâtiments, plusieurs édifices sous l'égide de Ahmed Mokhtar Narlo, qui représente aujourd'hui son père et gérant ces 3607 d'ailleurs. dellu si euh, xanaa defal leen benn présentation rek ci suñu magi daara xam ne ñi fi yàlla na leen yàlla yokk gudd fan ñi fi jot a jiitu it yal na leen yàlla may yal na leen yàlla doole ay ah, leer xam ne kii ñu leen bëgg a présenté Serigne Mohamed ah, ci doomu daara ji la baayam du ko yónnee woon sëñ Ahmadou Sakhir Lo ca train ba waaw ah, boobu gone la woon waaw muy Mohamed juuf xam naa ñu bari dootuñu ko présenté ci réew mi ndax nekkoon na fi ambassadeur ci ay réew nekk na dem na ba nekk ambassadeur u Libye léegi léegi léegi la retraite waaye maanaam euh, pour wan ne rek daara ji du du njàngum alxuraan kese waaye njàngum àdduna ak alaxira la waaw comme ni ko alxuraan di waxee ci ko ni ko alxuraan di jàngalee bul fàtte sa cër ci defal bayal sa waat ci àdduna waaye bul fàtte sa cër kon moom la xaar bu paree rek ñu ñu interview yi ko waxtaan moom mu sànni ñu ay kàddu ci ci liggéey bi moom it ku jàpp la ci son son excellence Mouhamed euh, Diouf moo nekk nii moom euh, comme ni ma leen ko waxee maanaam euh, mag la ci ci ci association bi nga xam ne moo organisé bi moom moo taxaw nii. mooy taxaddaa al zamaan wal makaan a ak taxat bi moo ko def. waaw gars yi ci des yëpp kii na. nee na moom moo défier jamono ak place. waaw solo. waaw suñu Cheikh Mbacke rek bu demee ci yàlla. mu fay ñu doon wax bàyyi ñu doon jëf naa perte. waaw bu boobaa nag ji moom fii la. <laughs> kon. sëriñ. Euh, waaw waaw <laughs> son excellence. Euh, dañ naan sunub sëriñ waaye son excellence en même temps dañoo bëggoon rek nga sànni ñu fii ay kàddu yi mu daan ta benn waaw dañ doon def euh, interview ci télé Touba kii ak Touba di TV waaw ak ah, koy samb sàmm sàmm sàmm présenté nañ la sànq nee nañu waaye mënuñu la présenté nu ëpp ni nga mën a présenté sa bopp danoo bëggoon rek nga wax nu jaar <coughs> dikk bi sama présentation fii waaw doom rek laa fi ah historique bi ni nga fi ñëwee waaw man ah, nag historique bi fi ñu tollu tey man joxe nañu ma ñaar fukki at juddu ma ñaar fukki at ma waaw gën jaa néew baay sama baay man saxee loog sama baay dañu àndoon ni yaa ngi ci nekk ci daara yi mhm. fii ci càlleen ci galaay euh, galaay galaay jaw mhm. mi jur mu ëmmat jaw galaay jóge fa dem nguy béy ca Mor Fatiane jóge fa dem ndar ci sawe si Laaji Malick donc booba ñoom seen jëm bopp kenn kon denc ci yoruñu ko denc ñu sama bàyyi nag yéemu lool ci bàyyi ma saxeer ci man gi man alxuraan maandu gi maandu yiw gi mu yiw ragal ragal yàlla gi mu ragal yàlla mu di nga xamal ne bis mu yàlla mayee doom dama koy tuddee rasulillah jox la nga jàng ko alxuraan oh yàgg na ëpp ay loolu ay 1920 nangam 25 wala yooyu parce que ñooñu ñoo ñooñu sëñ Abbas Sall. Baye Abdou si si balaa ji may ak gën sëñ Cene ba ah euh, euh, sëñ Cene ba dégg nga euh, benn Alpha Amadou Seck ñoo bokkoon di jàng loolu dafa yàgg. kon li ca ca ban béréb la doon ah, loolu daal yàgg na parce que teg def nañ ci ay at après nag ñu doog a ñibbi si sañ ci ay kër man ma judd ca 1941 ca Gosaas sëñ Saxiir di ñëw seet si ma ñëwaat seet si ma ñetteel ba mu jël ma indi ma fii. foofu garbaa ngay jax jaxi mu indi ma fii. Ah. waaye daara ji 1939 lañ ko taal. 1939 39. moo guerre mondiale ñoo juddoondoo keroog ba ñu soqe premier bal ci guerre keroog la sëñ bi koseti beneen aliment bi taal daara ji. est-ce que commencé jàng. ñu la di xeex ngir àddina moom muy xeex ngir yàlla. est-ce que. bi mu fi jógee booba treize personnes ñoo ma ko alxuraan. moom mokkaloon na ko vingt-six mille bi mu fi laa jóge fii mu nekk trois mille yu teg da nga huit cent bu euh, teg quatre-vingt-deux son excellence nga egsi fi ban ban ban man nag mille neuf cent quarante-huit nan nga fi ñëwee quarante-huit sëñ sax ñëpp bi ñu matee dal lañ leen indi man joxe nañ ma ñaar fukki at may doog a juddu ku nekk it sëñ tu sëñ euh, yaa fi indi sa bopp mbaa say ba indi la fi man sëñ saxir moo fi indi kon jëm fekke nga jamonoy xëy ga fokk nga fi xëy bi suñu suñu magi daara lépp lépp lépp lépp fi la ma fekk lépp ak ñëpp sëñ Sam Mbaye Jili Mbaye dégg nga mu euh, euh, euh, le ministre de l' intérieur Mbadiang Khary Dieng ñoom ñëpp fii lañ fii lañ fekkee noonu woon fii ñëpp Mbadiang Khary Dieng kër yaay mu ngi fii ci booru kër Moussa Baye Moustapha Dia ñoom it fekkante kon fii la jàngal xoon 48 moom mi ngi woon fii waaw ba 1941 42 boobu 48 lañ fi doog a jóge at mi fii ñëw ma lañ fi jóge fekk nga fi sunu baay euh, Oustaz euh, Ahmadou Lo borom Manaarul Huda. déet yow tam Ahmadou Lo yàgg fiy jóge kooku 1955 la fi jóge ci moom laa tare alxoon ci loxam. booba moom moo nekkoon. Euh, moom moo doon denga lëpp le le censeur des études de l' institut islamique. maanaam moo jiite woon liggéey bi ci njàngale. waaw ci wàllu njàngale ak tool yi sax nag. ak tool yi ndax dañ ne dégg ma Madoog Mooro ngi ñooy sumay seede tey. te lii kat du tiitar du ndam cant la ngir yàlla ne ab di santal say xéewal dama sant rabbi maal walidi wa ummi balaa cant mbat ne mel ne li sëriñ saama raw raw sa raw tiinu sa ba ñuy exement loola mooy ndam lu rëy ka doon exement woon a saam fi bërëb di laaj naan ko yow mi xanaa doo wolof dangay ngay dangay naar wala da ngay doomi buuram da ngay wali sëriñ naan ko man mi olof laa xasal dama boole root ak waa nag eh, bindal ku fay taalibéy bay bukkul xam na ma ku fay taalibéy di béy ci bukkul rek xam na ma bukkul nag fa maam Cheikh Mbay juddoo moom mi nga xam ne moo fi yebal sëñ Ahmadou maa la wax loolu fa la juddoo fii ci kokki gii mu la juddoo fii ci kokki maam Cheikh Mbaye maam Babacar Mbaye moo ko jur maam Babacar Mbaye mu ngi woon fi ci bukkul moo ko jur Cheikh Oumar Fouti fekk na fa jox ko lijaasa ci yoonu Cheikh Ahmad Tidiane Chérif fekk boobu mu ngi yore lijaasa ci yoonu Cheikh Abdoul Khadir Jeylani ñaar yooyu yëpp boo ko booleeg alxuraan mu ngi woon ci poosam sëñ Mor Saxiir Lo kon Sénégal mën noo wax ci présentation bi benn bopp la maanaam amul mosu la nekk ñaari bopp benn nit du am ñaari bopp xanaa njuuma waaye fii kay moom benn bopp rek moo fi masaam sëñ Touba mooy alaaji Malick waaw wëllëre maam Cheikh Mbaye la woon a mag. kan si Serigne Touba moom nga ay bokk la ñu ñoo bokk. mu di mbokkam ak bokk la ñoom ñëpp ñoo bokk. bokk gu wér lañu bokk. waaye nag loolu lépp ci xam ne moo ko dundal ba mu dëgër këng yàlla nga ko jaarale ci loxo sëñ Mat Saxiir Lo. waaw bu ko mën nañoo dellu si waat ci bi sa historique bu son excellence 1900 mën nañoo wax ah ba 56. ba 56. maa ngi woon ban jamono nga fi jàngal alxuraan ak. yow jamono boobu la. 48 ba 56 ban durée nga fi topp man nag xaw ma sax nag lu ma fi doon def xam naa ne daal tare naa fi alxuraan. waaye coon son sonn ma ca sonnaluñ ma ca na mu demee dégg naa daal léegi ñu ne mokkal na. kon xam nga pédagogie bi sëñ Sakhir moom. ni daan jànge dañ daan rang rek am ñuy dëbbe boo waxee boo waxee ñu aw xam nga loolu dafa neex dëbb mooy man ma wax ci kaw keneen topp ci bismillahi rahmaani rahim ñëpp wax alhamdulilahi rabbil alamin ñu aw arrahmaani rahim ñu aw malik yawmi diin ñu aw noonu lañu def ba sóotu yaasin ba sóotu yaasin bon nag mën nga fee mokkal ba sóotu yaasin te ndax ñu ngi koy wax yaa ngi koy dégg seen loolu ci loolu ci pédagogie bi ci la bokkoon encore it nu ngi ko daan jàng ci làmmiñu olof mu mel ni olof la ñuy jàng mu yomb lool ci nu baa yooyu di wax arab alif laam hë saxiir ab ak ab lonk miim nuun yooyu yëpp waxi waxi olof la du du arab donc nun ci olof la ñu jàng alxuraan ci olof la ñu mokkal alxuraan ba léegi noo ko gën a mokkal ñëpp ba nu demee ci réew arab fu ñu mës a def concours nooy raw naka jekk nooy raw Égypte raw naa fa ba tey raw naa fa ñu jox may prix ba tey ca conseil supérieur islamique te booba dee nga ki ñu wax Xusari ñoom ñoo doon moo doon nekk le président du jury dafa demoon ba éliminé noo do dama doo soo bokk ci concours yi da nga koy yàq Mahmoud Khalil al Xusari moom mooy Cheikhul Qur'an waaw waaw mooy ki njëkk a enregistré kaamil al Qur'an ci wér na nu du Cheikhul Qur'an sëñ Saxiir mooy Cheikhul Qur'an ah. Cheikhul Qur'an sëñ Saxiir la du moom ah. man wax naa ko sax mu joxam naa ko sa sa baata neex rek waaye mokkal loo kenn kenn mokkul alxuraan ci yow jàngaloo ko kenn nit ba mokkal ko sa sëñ Ahmadou Sakhir nag moo ko mokkal ay junni junni junni junni lim bi sànq ci ah waaw vingt-six rek laa wax te dama ko tàndale rek ëpp na ko junni da ñaar ñaar fukk ko foofu ëpp ko ah, ñun ñu ndaw ñi rek nga xam ne ci gannaawam la ñu ñëw jàngal nañu ay nit ba ñu mokkal waaw waaw dama ko tàndale waaye ëpp ko fuuf yàlla xam ñaata la son excellence ñu ngi lay gërëm bu baax a baax nag sëñ Touba joxam ay daaray kaamil la defaroon amuloy daaray kaamil lan mooy daaray kaamil ay waa xamu leen ko de sëñ Touba xam nga ay imprimerie amu fa woon pour ñuy mën a defar ay kaamil yu bare bare bare mu wut ay daara teg fa ay kaang mooy dundal ñëpp mooy dëkkal ñëpp seen liggéey mooy bind ay kaamil kepp bu ñu paree nag dégg nga mu di ko séddale ci àdduna bi pour ñuy jàngale am lu ñuy jàngalee moo tax ñu naan dee nga xalifa zamanu la yaati yenn bi mislihi xani sët yëmoonu ko yaa zamanu fa kafiri da nga woon yaw jamono yaay gëñoon ne ku mel ne rasulullah du fi ñëw waaye mu ngi nii taxaw mu ngi nii ne jonn mi sëñ kitaabu rabbi kaane lii wakkantu loo walaay bi santuma defal yàlla lu kenn defalul man ngay dool du ma fi dugg bàyyi noonu rek kon xanaa rek ñu defal lien bi bi nga xam ne moo dox ci Serigne Touba ak Amadou Sakhir Lo jaar ko ci Serigne xam nga ma Amar ah, Serigne Touba ah, ma Mame Mor Anta Sali ko jur Mame Mor Anta Sali ah mook Serigne eh, eh, ñoo bokk ca Ndaam ca Ndaam ca Ndaam ah, waaw waaw mu sax ak la yaayam ak waa ngi parce que Sali Mbacke mëti mëti mëti Mbacke Sali kan mëti Mbacke ko yóbbu Alaaji Malick Aram Lo Kumba Thiam Fama Wade Mbañ Penda Malick waa Ndam ñii ñoo ko jur ñoo jur jur alburi bu alburi ma ne woon fële waa Ndam ñii ñoo ko maam Cheikh Mbaye mii waa Ndam ñoo ko ndaam mooy garab gu mag gi ay bànqaas lañu rek. kon mën nañoo wax xaasi bi daaw atunaa ruddat ilayna. ah bada atunaa ruddat ilayna wa namiru ahlina wa nahfasu axana wa nasdaadu kayra bi aydina zalika kayrun yasir. son excellence loolu mooy sooti Youssouf Laye boo dem mu ngi